ñu ñëw tey fii ci lycée LPA 14 pour jàppale suñu doom yi ci conditions yu métti yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ci lycée bii nga xamante ni mi ngi départ ci Ginda Thiam ci unité 13 ñu liggéey foofu 8 ans ñu dem ba yàgg lycée bi bëgg a daanu ci suñu kaw ñu jóg ànd ak yi ak collègues yi ak administration bi ñu bind autorités yi bind mairie bu Dakar bind ministre bi bind autorités yi ñu war a bind yëpp gouverneur ñëw fii ni il faut dañuy déménager ñu déménager wu unité 13 ñu sommes ñu unité 17 moitié élèves yi ak professeurs yi ñu yóbbu len 17 ñi ci dess ñu andi len unité 14 lool di situation bu métti bo xamanteni ñong ko don dund depuis 2016 2017 ba tay promis ñu joxoon ñu ay promesse ni euh, liguey bi dana ag ci dir bu gatt dans 6 mois ñu jox ñu suñuy caabi waye lool lepp dara amu ci tay ji ministre bi ñawoon na bay fi Serigne Mbaye Thiam 2017 jox ñu ay promesse promesse yi mu ñu joxoon am na ci loo xam ne ba léegi taxawul loolu nag mu andil ñu insécurité bu mat ci école bi d'abord xool leen buntu école bi fu neex waaye mu jaar ñu nag dof yeeg xaj yeeg janax yeeg ñëpp ak bu ñu génnee ci salle de classe yi ñu fenn fu ñu toog ci biir école bi amuñu banc bu ñu toog amuñu ker gu ñu toog dañuy mujj dellu siwaat ak professeurs yi ci biir classe yi di xat-xatloo ñoom ndax naaj bu tàng bi xool leen ndox mu ñu naan boo génnee ci classe yi sax loo raxasoo amuloo ko da ngay dund situation yu méttee méttee métti mbokk yi xool leen comme ni ko suma collègue Cissé waxee bu ñu génnee ci classe yi salle de prof bi ñun ak surveillant yi ñun ak surveillante yi ñun nekk élèves yi ñun ak liggéeykat yi ñëpp ci biir salle de prof bi mu nekk situation bu métti boo xamante ni ñoo ngi koy dund xoola xeer yi xoola barre de fer yi xoola brique yi xoola miir yi yi lépp waxtu wu nekk lu nekk mën na caa am ci biir salle yi doo gis doo gis lamp amul benn salle de classe boo xam ne lamp nekk na fa wala boog tableau bu baax wala lenn loo xamante ni daañu dimbali ba ñu mën a def suñu liggéey normal beneen bi ci des mooy dangay ñëw jël say élèves war a jàngale doo am salle de classe boo jàngale nga ànd ak élèves yi di tourné ci biir école bi ba mu jural la nga tardé say cours say élèves tardé seen i cours loolu dañu bëgg mu dakk beneen bi ci des xoolal liggéeykat yi xoolal suñu proviseur ma nga ca unité 17 suñu censeur mi ngi ci unité 14 ñun dañuy obligé di jaabante diggante indi 17 unité 13 unité 14 ci ay enseignants yoo xamante ni dafa ñaaw loolu lañ